yéen la mag yi tey yi nekk fii tey ñooy tëj dëkk bi di fi def lu leen neex sànq mu ne pas allemand pas allemand yooyu ñooy nekk mbuusu medd bi ni hmm. ñu nekk pas allemand yi ci seen biir kër yi suñ génnee ñooy doon ay muus ci mbedd mi ay xale yu tuuti di jàpp dakk takk seen bakkan bi buum di leen diri. amal tuuti respect si mag ñi amal tuuti respect. prospect parce que loolu la ñuy waxtaane nii. prospect c'est-à-dire dafa am solo. Mhm. waaw yaa ngi dégg amal tuuti respect. ci mag ñi ba am loo xam ne du ma ko nangu ci plateau. waaw prospère may ma mën comme vous parlez comme si on viole les filles dans tous les coins de rue de fi am mais loolu moo fi am mais non day ah, amal amal respect amal respect ci mag ñi ci mag ñi parce que mag ñi aussi comme ni ko père di waxee mhm. ay ay du ñu waay yàllay tef mhm. ay ay ay mhm. waa yàllay bukki lañ duñu njoowaaru tef attention waaw par respect tamit par respect tamit par wax dama ne tekk di la déglu. fii rek dañuy échanger fii. waaw foog naa loolu ci res bi tamit la bokk. wala. d' accord fii dañuy échanger fii. gis nga déglu. moo fi am mooy mën a yow xanaa. mooy mooy mooy mën a yow. xanaa mooy mën a yow. xanaa mooy mën a yow. yow bàyyi appartement yi ngay wax waaw may ma ma eggale. may ma ma eggale. xanaa mooy mën a yow. waaw ah, parce que mag ñi mooy ñun ah. waaw may ah, nañu assumé. waaw ah, nañu assumé. waaw pourquoi toujours nga si jël sa bopp yow. mag ñi mag ñi mag ñi mooy yow mooy man. pourquoi nga si jël sa bopp yow. monsieur da ci génne sa bopp wax ju ñaaw fa mu jógee fa mu jógee da cosaanoo arrêté leen seen lii ngeen di wax Benoît salaam bi Benoît muus fi ay Benoît statut ma bëgg a wax quand même Macky ñoo ko Benoît lan la xale yi appartement dafa naxari non dama xalaat kon man ak yow la dama koy def Benoît ni lan la Benoît dama laaj ndax man ak yow la bàyyi sa bopp ñu génn ci mag ñi ci mag ñi nga bokk doo ma may nga bokk Benoît ay Benoît baal xaste bi bëgguma dégg parce que instant yi moom dafa baal xaste waaw ma lay ñaan s'il te plaît waaw d'accord may naa la loolu loolu madame. de l'émission. déedéet mais nag lii rek. ah nag tey nag fi toog di ne mag yi nii ak nii. waaw waaw c'est pas lui le modérateur. s'il te plaît. ah mais c'est c'est pas lui mais il fait partie des modérateurs. s'il te ma eggale li may wax. ce qui c'est pourquoi il est là. waaw may ma may eggale. baal jàmbur maa ngi ñëw maa ngi lay doxaat léegi. baal jàmbur. xam nga lan moo difficile Sénégal. ah man de jommi communiquer fii dafa xaw a métti. waaw merci beaucoup jërëjëf. Mm-hmm. parce que on communique selon peut-être par exemple ku ci nekk ni nga gëm ak li nga mm-hmm. xam. waaw mm-hmm. waaw mais il faut qu'on apprenne aussi respecter la des autres je suis d'accord avec Prosper quand il dit ne Amine na respecter Macky c'est sa façon de communiquer waaw d'accord d'accord ak moom et moom mën na respecter loolu ba pare communiquer neneen mën na mën na nekk c'est-à-dire Macky nañu jéem di jubbanti xale yi de telle sorte que ku nekk dina xam sa yoon fan la tegee xale yi tamit nanguñu jubbanti leen parce que à ce rythme personne ne va changer d'accord parce que mag bu ci nar a jubbanti xale ñu tontu la teg la sa place dangay ngay nu dee noonu wér xale xale bu ñuy jubbanti tamit fu ñu lay jubbantee bëgg laa ñàkk kersa wala bëgg laa am lu mu defanteeg yow nga gis sa bopp doo déglu nga gis sa bopp donc il faut qu'on revoie ñun mm. ñëpp suñu façon de faire mm. le mm. respect doit être réciproque. Mm-hmm. mag bi dafa war respecté xale bi. Mm-hmm. xale bi respecté ki nga xam ne moom mooy euh, mag. c'est important ku ci nekk jox sa morom cër ak loo leen amee âge yu différent am âge différent man laa xam te loolu laa gëm ni moom moo mën a doxal société daa mi dañ la bàyyi nga continuer ñu mën a tëj émission bi si jàmm ak salaam ku ne dem ñibbi waa kay ah. macha allah te ci jàmm lay jeexee sax nag incha allah parce que yàlla dogal na ne ñun fa ñu jógee yar nan sama papa ñu ngi lay déglu. ndey kii woon ndey gis muy mag. waa ndey demal nga jox ko ci war koo jox cëru mag. jox ko cëru mag ki la mat ki la ki la féetee mag la moroomu nday jox ko cëru nday ki la mat moroomu sama kaw du sedd de baal ko nday ami soo dalee sama kaw du sedd de ci laay ñëw barke borom Touba yow lan la yow bon waay yaay kan may ma may leen ma yeggale waay s'il te plaît parce que yéen ñëpp sànq ma dégg fi wax dama naan tekk du ma sax wax damay noppi di leen déglu non non mais parce que dama leen doon déglu kon da ngeen may déglu tuuti ñu ngi lay déglu comprendre nga kon bu ñu waxee moom sànq daf ne Prospère sànq daf ne mag ñi. Hmm. bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. da wax na dëgg. tey bu ñuy wax mag ñi mag ñi mag ñi nga xamante ni bii tey am na ci ñoo xamante sànq kii dafa dugg ne kilifa am na ñoo xamante ni du ñu ay kilifa ay kilifa nga lañu. waaw mais nga ba ko ca parce que lañu war lañu lañu lañu. la leen war la leen war la leen war. waaw defuñu ko. waaw tey si tey. bu ma dee wax man Prospère yow taxaw ma may wax. waaw ki bon nekk ci bedd mi kookoo ma tax di wax. waaw mais ndax boo bonoon am may ma rek ma eggale papa. Mm-hmm. ndax boo bonoon yaakaar naa ne toog fii ci plateau bi di wax ñu ay nég di la déglu. nangu naa comprendre nga. kon kon. Mm-hmm. li may wax yow wax moomuloo ko. keneen moom ki baax nekk ci biti moomu di ko def kooku ma tax di wax. waaw mais soo nee mag ñu ne day ma rek may ma rek mais am na fi. Sophia gis kii Sophia sànq bi mu fi duggee wax na ko am na fi ñoo xamante ne bi ay mag yoo xamante ne bi moom kilifa sax la wax man dama naan ay mag ñoo xamante ne bi tey bu ñu waxee tey ñu xeef leen te effectivement man am na ñoo xamante ne bi tey maa ngi leen di gis ci société bi tey nawlawu ma leen tey buñ ma doon wax sax du ma leen doon déglu su la neexee amul ci ay magu jigéen may moom ma ñëw rek bu ñu waxee ñu xeeb leen bu ñu mag wala bu ñu waxee mag bu ñu waxee mag ay mag waxuñu mag jàmbur mag en général la ñu wax. mag en général la ñu wax. waaw kii wu ñoom amuñu différence wu wax góor wala jigéen. mag mi nga xamante ne bii dafa matadi ba deful lu war waru ronu kilifa kookoo ñu tag di toog tax a toog fii tey di wax. Hmm. kon boo waxee ne nañ jox cër mag ñi kon hmm. tey tey man mi nga hmm. xamante ni bii yaakaar naa ne am naa tuuti yar de mag ñooñu mata di nekk ci mbedd bi pour man war naa mën a wax tuuti ñu dégg wala man foofu laay waxee mais boo waxee ne amal tuuti respect ci ah, mag ñi dafa am noo xamante ne li ngay développé doo ko développé parce que a dem non non bu dalee sama kaw ak ñu waxee ñu dem ñu dem ñu gisaat koo xamante ni bii tey tey mi ngi yor doomam si biir kër gi sànq ñu wax affaire communication am na fi parents yoo xamante ni bii seen doom ñemewuñu leen a wax ñëw na leen sama bopp day metti sànq wax nga fi ne bu njëkk ba xale da daan toll foo xamante ni bi jigéen bu gisee règle am ñëw ci yaayam ne ko indisposé naa nangam ak nangam bu expliqué ko nam koy defam amatuñu jot boobu. d'accord ñan. ñenn ci mag ñi. jéey temps bi dafa jeex. dama la ma comprendre quoi. ñenn ci mag ñi ñenn ci mag ñi am nañ ci amatuñu jot boo xamante ne wala bu ñu amee jot bi ci biir kër gi sax am nañ caractère boo xamante ne bi seen doom ñëwu ñoo jàkkaarloo ñëw moom ne ko papa wala yaay nangam ak nangam amul. affaire règle moom yaay lañ koy laaj kenn du ko laaj papa je suis désolé. <laughs> mu amaat sànq ngeen wax tamit ne am na mag mu nekk ci koñ bi ñu ne mag mu baax kan lañuy wax mag mu baax ak kan moo baax kii gàddu kurusam kii kocc koccal di dem jàkka ñaata yoon nga gis koo xamante ni bii doomam. xaritu papaam moo ko violé ñaata yoo lañ ko fi dégg du jeex. d'accord ñiy mbubboo. bari ñenn ñi ñenn ñi dugg ñëpp de. ñenn ñi nga xamante ni dañuy mbubboo yor benn satala benn sijaada dëkk ci koñ ne dañuy jàngale alxuraan violé xale yi ci kër koñ bi que seen yaay parce que seen papa wala seen yaay may ñu leen kanam ñuy waxee loolu yow nga cee gis genn kilifa bu teex ak yow du jeex am pagaay yaa dama ne ndax kilifa man bi ma si gis sax boo gën a dee dama ne ndax kilifa mës na koo toog non non dama ne bi ma ci gis ndax genn kilifa mës na koo seex ak yow dafa jeex dama ne yow lii laaj dama ne laaj la kay ndax li muy wax dama ko laaj parce que man man kilifa du ko li muy wax daaw po. nee merci waaw man liggéey bi bu yor seen dama lay laaj ndax yow. yow mës nga ci nekk. waaw ndax mës nga nekk nit yu baax. damay laaj waaw damay laaj waaw ndax mës nga cee nekk nit yu gis. waaw mag yi ñuy wax. may ma rek waaw kay man dama koy laaj ndax li muy wax dama yaakaar ne du xam nga ni mës a suuf la. dama yaakaar ne du xam nga ni mës a suuf la ndax nee na mag yi nga xam ne doon la yoon kii. xaaral nañ ko tontu loo ma tontu bëgg naa. Ah, ah. dama ne